jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di wax xaalaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bi ñu jotee xibaar bu tiis bu metti dal ci kaw suñu frère Wally Ballago Seck ginnaaw bi mu ñàkkee baayam na ni daaw weer wala ci ginnaaw mu ñàkk magam bu jigéen moom dañuy géy ñu ngi ñuy tàgge demuk suñu yaay Kine Diouf ñu gën ko xamee ci Ndeye Fatou Diaga ca fële nga xamante ni que moom mooy ca tugal plus particulièrement fële ca France di nouvelle bu metti waaye di nouvelle it bu tiis boo xam ni dal na ci kaw Wally Ballago Seck moom ak ay rakkam tout l'ensemble de la rédaction de Bprod Média plus particulièrement Bour Gueweul ñu ngi jaale suñu rakk Wally Ballago sekk di jaale rakkam yi Seydina Seck ak seeni rakk di ñaan yàlla Ndeye Fatou Kiné Diouf Diaga yàlla na ko yàlla xaral jana yiw wi mu doon def ci lislaam daan ko def ci néew ju doole yi daan ko def ci ñu wujj seen borom yàlla na ko jiitu ci bàmmeelam dara leen toppal xibaar yi ba xam incha allahu koor bi kañ lay ñëw fii ci senegal waaye ñun ñëpp ñu ngi leen koy jaale di loo xam ni vraiment dal na ci kaw Wally Ballago Seck muy lu metti muy lu tiis muy loo xam ni dëgg-dëgg Sénégal yëpp ànd nañ ci ak moom di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may xolu muñ di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla suñu borom di wéttalam fi barke alquranu karim barke Cheikhul Khadim jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di wax xaalaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bi ñu jotee xibaar bu tiis bu metti dal ci kaw suñu frère Wally Ballago Seck ginnaaw bi mu ñàkkee baayam na nga ni daaw weer wala ci ginnaaw mu ñàkk magam bu jigéen moom dani géey ñu ñuy tàgge dem suñu yaay Kine juuf ñu gën ko xamee ci Ndeye Fatou Diaga ca fële nga xamante ni que moom mooy ca tugal plus particulièrement fële ca France di nouvelle bu metti waaye di nouvelle it bu tiis boo xam ni dal na ci kaw Wally Ballago Seck moom ak ay rakkam tout l'ensemble de la rédaction de Bi Pro Média plus particulièrement Bour Gueweul ñu ngi jaale suñu rakk Wally Ballago Seck di jaale rakkam yi naa Seck ak seeni rakk di ñaan yàlla Ndeye faatu Kiné Diouf Diaga yàlla na ko yàlla xaral jëna yiw wi mu doon def ci lislaam daan ko def ci néew ju doole yi daan ko def ci ñu wujj seen borom yàlla na ko jiitu ci bàmmeelam danañ leen tëppal xibaar yi ba xam incha allahu koor bi kañ lay ñëw fii ci senegal waaye ñu ñëpp ñu ngi leen koy jaale di loo xam ni vraiment dal na ci kaw Wally Ballago Seck muy lu metti muy lu tiis muy loo xam ni dëgg-dëgg Sénégal yëpp ànd nañ ci ak moom di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may xolu muñ di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla suñu borom di wéttalam fi barke alquranul karim barke cheikhul xadim